asalaamaaleykum suñu mbokk internet Dakar People xibaar bu tiis moo fi wàcc mu génn àdduna Pape Malick Sy Pape Malick Sy nekk caat ci sëñ Babacar Sy nekkoon ak Serigne Cheikh def nekkoon magam defoon ko papa nekkoon xarit lool ci Cheikh Tidiane Sy Al moo génn àdduna Pape nag nekkoon porte parole famille si yëpp bi ko nekkee sax yàggul noonu waaye Pape dem na fekk ay maamam magam ja maam Cheikh ñu koy jaalee askanu Sénégal yëpp rawatina waa Tiwaawoon ngi leen koy jaale di ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana waaw di ko jaale tamit sëñ Modou Kara mi nga xam ne ay doomi ndey lañu woon am na lu ko naqari torop Cheikh Ahmadou Kara Noreyni di ko jaale Mouhamadou Moustapha Sy responsable moral Moustarchidina wal Moustarchidaati nga xam ni Pape moo ko yar ñu ngi jaale Sénégal gépp di ñaan yàlla yal na ko yàlla yërëm ñu ngi leen di jox dig daja nag ci yeneeni xibaar ba ci kanam